waaw maa ngi leen koy wax tey jii laa gën a bokk Pastef gën a saf-sàpp ci Pastef waaw bu ngeen xoolee sama vidéo yi passé ba général Moussa Fall génnee alerté naa leen te boobu damaa wax sax ak xol ni naa leen ngir yàlla war a sulli bàyyi leen jibile bi lii système armée la ci armée ne xam naa yii mooy lan fu ñu génnee wax waxi apaisement rek xamal ne ñi ngi waaj ñëw ak doole wax naa leen ko man ni leen apaiser wu ñu dara Moussa Fall tegu ci glace def leen attention ci yi ñuy wax gëmuñu li ñuy wax xam nga luy apaisement mooy nga génnee prisonnier politique yëpp te période boobu ñi ngi Moussa Palla ngeen wax ngeen naan dajee teg ba pare ñuy gën a jàpp ni ñi di tëj ça veut dire waroon ngeen xam am na lu ñuy préparé alerté nañu ba sonn un mois passé ak chaque vidéo bu nekk maa ngi rappelé waat naan leen Macky Sall neen li fi amoon dootu fi amaat ma ni leen loolu am am am samay commentaire ñuy nan li fi amone amaton na fek le 2023 man len ay toj ak saccage Macky Sall lo taxu kaa wax toj saccage day defarat manam bu jappé Sonko dotu ka bayyi lool la doon wax wax naa leen ko waxati lako man ay information yi may am c'est que bëgguma di wax quoi mais luma len wax tek len ko ngeen sétane da ngeen kay gis bi général Moussa Fall waxé la len ni du dëgg il ment limi def billahi bu ngeen ni bayyi sen loxo ñu ñi fat ma wax leen Macky Sall bu jàppee Sonko alerté naa ko alertéti ko ma wax leen nag leen lu ndaw ngeen dégg ko des fois day am ñuy divertir naan ñi nekk bitim réew ne fa di wax jàppal bàyyil wax naa leen benn wax ngeen dégg ko ñi nekk bitim réew un tiers budget Sénégal ñoo ko fay dugal bu dee budget bi six mille milliards la deux mille milliards yëpp ñoo ko fay dugal tam man ma jël exemple ci man waxuma keneen ko ne bitim réew da man ma max leen ko ngeen dégg ko man man sëy fayuma kër fayuma lekk fayuma naan ta chaque le 26 sama khalis bu bari buñ may fay dugg sama compte kon man lan motax may ray sama bop di yuxu ci senegal di ray sama bop melne demb ba tay nelaw ma pare ñëw def effort physique bu metti te guma, ndax lan sama dekk lan motax ñuy ray suñu bop suñu dekk ban intérêt lan parce que yalla moy tek nit nat nga ñew sa dëkk bëgg ko rek dëkk bo gis mu rafet sa nga ni sa dëkk li tax menul ni ñun looloo ñu japp loolu rek ñu japp damay nek emirat di gis li fi am yépp duma dem ci yenn place de luxe kenn duma fa seen parce que ma fa démé dama mën na taxaw absenté ni li li tax amul sama dëkk ñu gis ku té ben projet ñu am ci yaakaar ni dëkk bi war na mëna changer loolu entre parenthèse sax wa Pastef yëpp bu ci kenn accepté moo xaar leen ko ngeen dëkk di dem ay plateau télé ñu leen di invité ngeen naan oui c'est que oui on va aller on a dissous Pastef on va bu kenn dem ci plateau euh, plateau télé. c'est pas le moment guddi ñu toll plateau amu fi place li fi am place mooy mbedd mi Sonko du mu gën a gore bu mu gën a gore kenn lu mu jar ci dépense wala lu mu mënta di doon dinañ ko def jeunesse bi bu déterminé rek. dinañ jël comme yeneen dëkk yi Burkina Faso Mali euh, def ni Maroc donc def ni Tunisie def ni yeneen dëkk yi jël seen destin yëpp amee ay groupe sàcc nekk Sénégal sàcc suñuy milliards Mame Mbaye Niang sàcc suñu 34 milliards 1000 milliards Covid bi anamu saa yu ñu waxee yooyu rek Macky Sall rek tourné rek genne dossier Sonko naan Sonko pour ñu fàtte lépp ay bandi dëgg ak bëy ñooy sàcc yi nekk foofu procureur fils de pute boobu. amul lu muy def jël ay vidéo dagg ci tuuti tuuti tuuti mais ñi na xam ne vidéo complet yëpp dinañu yóbbu plainte yi fépp ñu ko war a yóbbu ci monde bi yóbbul leen vidéo complet bi ñu xam ne li ñuy def yëpp ay duul la jeunesse bi nag bu leen nangu administration bi liggéey bu mu liggéey ñoom dañ naan sénégalais deux trois jours rek ñu bàyyi bu leen donné bu ngeen abandonné dee man maa leen ko wax c'est maintenant ou jamais wala ngeen bàyyi Sonko kaso ñu rey ko fa pap Alé moom def nañu diversion jàpp Sonko ñëpp a ngi naan Sonko Sonko te Pape Alé moom boobu la gars yi nar a faat nag après gars yi concentré wu ci Sonko maa leen koy waxaat tey toog leen foofu di xool bu ñu journaliste si bu ñu jugul Pape Alé Niang dinañ ko faat dañ koy faat ba pare indi benn diversion bu rëy ci Sonko gars yi teel a faate Pape Alé maa leen ko wax tey ngeen dégg ko ñii ay bandi lañu ay doome xaraam yu bon lañu baaxuñu duñu ay nit wax naa leen ko waxat di leen ko jeunesse bi billaay bu ngeen jëlu seen destin ñun ñu ngi fi rey suñu bopp te ñun ñun tranquille mais li ñuy wax nii ba quatre vingt pour cent c' pour ñu nekk Sénégal sonn na ndax ñun dañoo bëgg ñoom ñu nekk condition yi ñu nekk ñu nit te mën ñoom mën nañ ko nekk Sénégal amuñu lu ñuy gañe ñun man lan la ma Sénégal mën a gañ lu ma émirat fii payul état lay liggéeyal xam nga fii bu lay fay xaalis bu du jeex lan lay fay lan la ma Sénégal mën a fay ban intérêt laa am lan lan lan dara mais man yalla moy teg nit nga bëgg sa dëkk ta do xam li tax da ngay bëgg ñëpp am auto ñëpp am kër ñëpp nekk sen olala yow lool rek ngay bëgg mais am groupe bande bu fa nekk jeunesse bi billahi bu ngeen jëlul sen responsabilité légui dotul nekk na ngeen def rek Sénégal royaume sal Sénégal pays royaume sal c'est fini xamanteni jeexna ki na élection bu jotté moy taxaw ni mo gagné par force kenn du ci mën dara te lépp rek yàgg naa ko wax suñu justice ñooñu trahir suñu homme de tenue ñooñu trahir bàyyi leen naan policier bee ngi jooy ñu jooy ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp yem ñoom ñëpp film la ñuy joué buñ la jooyee ni la triste non booy ñii baaxuñu c'est pour vous apaiser ñoom ñëpp a yem solidarité lañ am seen biir chaque jour max leen ko fi mu nekk nii du période wax wax bu bëri regroupé wu leen daat ànd ak détermination bu leen abandonné fii fii ba vendredi bu kenn liggéeyul ngeen jox leen rendez-vous weekend bi ngeen jox leen rendez-vous jeudi lundi te fexeel leen ba <laughs> ba télévision bu fa kenn dem di wax bu fa kenn dem den apaiser bu leen déglu benn chroniqueur fils de pute buy toog naan wii nan nu dem du waxtaanee ko dëkk bi bu leen dégg médiation bu leen ko sax dégg xam nga lan ngeen lan ngeen di dégg Sonko génn na bu leen kenn wax non nee nañu semaine prochaine nee nañu suba dinañ ko génn nee nañu avocat yi dugal nanu bu leen arrêté tant que niw ñu leen ngi nii këram c'est que révolution buy am il faut ngeen mën ko da ngeen di tëg gumbalu anamo mi ngi këram loolu rek tax ngeen arrêté bu leen déglu kenn. asalaamaaleykum.